ñoom ñaar teeloy gaal gi parce que yaakaar bëri woon moom daan ko waaye ba ñu gis ngeen libido gis ngeen li nga xamante ne libidoor tas tas yaakaar ndeysaan daw na jëli ko mu bañ Ibou Senghor tas yaakaar Ibou Senghor tas yaakaar mbin géy gi ak Libidor bu Kayaar ndeysaan Libidor ak Mbine Gueye gi ñu ngi noonu Tass Yakar jëli na ko Ibou Senghor plaqué ko da koy daan daan na ko daan na ko daan na Tass